délégation générale à la protection sociale et la solidarité nationale bi ko président de la république Macky Sall tege dafa am si wàll bu mu war a liggéey loo xam ni dafay tax ñu mën a ñoŋal sunu système protection sociale maanaam sénégalais bu nekk boo amee jafe-jafe nga am loo xam ne kiiraay boo xam ne dina tax boo amee jafe-jafe ñu mun nga mun si wékku wékkandiku pour nga bañ a euh, am am ay jafe-jafe maanaam par ku ku war ku feebar mun a faju comme nañu gisee couverture maladie universelle bi ñi nga xam ni amuñu amuñu dara lu lu lu néew loo xam ni mun na leen tax bu ñu buggee bu ñu xiifee ñu mun a lekk wala bu ñu feebaree ñu faju ñu teg dugalee par exemple ci bourse de sécurité familiale ak yeneen ak yeneen ñi ñuy accompagner ci ay financement ñoo xam ne bu ñu leen accompagner wul du ñu mën a am financement yu mel noonu yu mel noonu mooy euh, mooy constituer système de protection sociale ak ñi nga xam ne bu ñu retraité am dara loo xam dinañ mën a wéyal seen seen dund dund ci seen ak ak dignité donc loolu moo ñu dañu ne loolu nag bu ñu ko bëggee teg dañu soxla ay financement financement yooyu nag dañ koy xool fan lañ koy wutee fu ñu koy wutee nag dañ koy dañuy jàngat jàngat def ay étude études yooyu nag la ñu BIT accompagner woon ba nga xam ni wax nañu ni ko ñun bu ñu buggee yokk financement seen gouvernement Sénégal bu ko buggee yokk fan la koy jëlee naka la war a def moom la ñuy ñëw tey bërël ko fii ci kanam ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci protection sociale bëral ko tamit ci kanamu partenaire au développement société civile tamit accompagner ñu ci loolu la ñu nekk di pour yokk tamit yokk euh, am xaalis bu ñu financer protection sociale gis nañu ni que il faut sénégalais yi ñëpp ñu ñu mun a dugg ci système de protection sociale gis nañ ñiy liggéey ci secteur informel bi ñu lu ci gën a bëri amuñu couverture sociale de, de sécurité sociale ba nga xam ne nit ki su feebaree mun na am jafe-jafe faju walla bu demee ba mag nga xam ne mënatul liggéey du am dara loo xam ne dina ci suturloo ñu ne dañ loolu tamit mun na tax ñooñu buñ si duggee dina tax ñu ñu yokk kiiraa ci kiiraay bi protection sociale mais dina tax aussi ñu gën a mun a am ay contribution tamit gis nañu ni que ay recette am na ay recette fiscale yoo xam bu ñu ko àndee par exemple pétrole bi ñuy wax bi ñi nga xam ni par exemple si euh, cigarette bi nga waxuma ko woon si français dama ko fàtte c'est important cigarette bi nga xam ne dafay dafay andi ay ay feebar Euh, alcool bi sàngara bi nga xam day indi ay feebar yooyu yëpp bu ñu ko surtaxé dina tax ñu wàññi feebar ba pare dina tax ñu mën a financer protection sociale exonération ñu wàññi ko leneen ak leneen ak leneen donc loolu la ñu nekk tey di ko di ko di ko waxtaane te buñ ko waxtaanee ba ba pare ba gouvernement bi ba jël si dogal lu lépp luñ si mënte def tamit dafa am société civile dina ko porter partenaire au développement yi dañ leen di soxla ba pare tamit ñëpp war nañ ci jàpp ba nga xam ni loolu dina mën a euh, sotti loolu mooy solo ndaje bi tey. waaw secteur informel bi ak ak ministère du travail ñu ngi daf liggéey bu am solo parce que déjà am na régime simplifié du petit contribuable boo xam ni dañ ko teg waaye xam nga pour wax dañu war a waxtaan ak ñoom ba wan leen solo nekk ci protection sociale commencé nañ ko ak artisan yi ñu ngi koy def nga xam ne dañuy dañu am benn kees boo xam ne artisan yi ci la ñuy cotiser nga xam ne kii liggéey kii ak. ki koy liggéey loo ku nekk am na looy indi lu ndaw la loo xam ne buñ ko dajalee comme ni ñu defee seemi bi rek nga xam ne lu ndaw ngay andi ba nga xam ne boo feebaree ñu mun la jël en charge donc secteur informel dañ leen di ñaax parce que nekk di liggéey mun nga am tey mais ëllëg tamit mun nga am jafe-jafe boo demee ba mag tamit doo mun a mënati liggéey tamit am na loo xam ne war nga ko war nga ko euh, prévoir war nga ko sóoraale nga xam ne dina la si jàppale bu baax a baax gis nañ bi Covid bi ñëwee nit ñu bëri am nañu ay jafe dañu bëgg moo tax nag ñu war a gaawantu ñu teg système de protection sociale gis nañu réew taax yi nga xam ni yi nga xam ne am nañ système de protection sociale bi Covid bi amee ñoom ñoo gën a ñoo tane mais ñi nga xam ni comme réewu réewu Afrique yi nga xam ne amuñu couverture de ci protection sociale bu dëgër ñoo gën a sonn moo tax nag foog ñu gaaw ndax xamuñu beneen euh, jafe-jafe fu ñuy fekk te nit ku ne war nga nekk ci sécurité parce que tey nga xam ëllëg xamuloo nit day wër tey suba mu feebar et cetera tey mun na am suba mu am mu ay jafe-jafe loolu. damay rafetlu donc li nga xam ne moom la délégation générale la protection sociale sumb nii muy daal di woo ñëpp ñoo xam ne am nañu seen wàll ci protection sociale ni leen ñoo leen ñu toogandoo saytu xalaat daal di càmbar naka la ñu mën a def pour que protection sociale daal di fii sax tey dañoo gis ni donte réew mi def na ay jéego yu rëy ci wàllu protection sociale daal di koy def def ko daal di koy jël def ko une politique publique dans ce pays dafa am loo xam ne ba léegi sooxee am na foofu mooy ne suñu koppar yi nga xam ne moom li ñuy jël di ko dugal ci protection sociale ba léegi dafa doyul te il faut nag ñu daal di xool suñu budget daal di ne naka lañ ci mën a jëlee lu takku daal di koy féetale ci protection sociale am na gëstu boo xam ne suñu partenaire yu l'ARTES def nañu ko gëstu bi li mu wone mooy ne programme boo jël ci protection sociale tey amu ci benn boo xam ne téeméer yoo jël financement bi mot na ñaar ci six mille milliards ci suñu budget national xam nga ni donc foofu boo ko xoolee ay jéego war nañ ko fa gën a yokk war nañoo gën a baral liggéey bi financement bi lool la ñuy rafetloo li nga xam ne moom la délégation di def daa di ne ah affaire bi pour que mu yàgg fi sax fi débarqué il faut ñu àndaloo ñu ñëpp daal di xalaat donc bu ñu woowee ci waxtaan boobu ñun société civile dañuy sawar ci ñëw lii mooy suñu tànk tey ñoo taxaw fii ànd ak délégation générale boo xam ne partenariat bu takk moo am suñ diggante pour que protection sociale mën a sax ci biir réew mi